donc coalition bi nag ay parti ñoo ciy bokk waaye dañ koy yaatal ay parti la ay mouvement politique la ay euh, association de développement lay doon ay personnalité indépendante lay donc parce que Sénégal dafa tollu foo xamné waratuñ par parlo dañu wara fexé fexe ku xam journaliste bi xam dara ñëw indi banquier bi xam dara indi agriculteur bi xam dara indi ñëpp bolo pour ñu xol Sénégal nu muy avancer ñun foofu lañ toll motax ñu woote coalition

au contraire da nga war a Sénégal tax a ak ñii nga xamné amnañu amnañu yité ak yéné ci Sénégal ñu xol nan nañu mëna liggéey ak ñom donc ñëwuñu fi pour changer dara waye ñun dañu décider wu engagé wu parce que dafa jot aussi euh, sénégalais yi pour intérêt Sénégal ñu faté sen bop faté li ñu am faté Sen, njaganaay faté sen noflay ah soobu ci mbir mi parce que politique Sénégal mom fofu la décision yi nek bo bëggee amal njëriñ sa réew bo boo euh impacter décision yi ñu am il faut nga def politique ñun ñëpp moom moñu ci duggal donc ñu ci wo ñëpp. Ah, pour man 200 candidatures yëpp ñu amal yéné ak intérêt sen réew la c' des gens yo xamné xeyna xëy nañ japp nañ ni que amna na lu ñu mën a Sénégal donc man lu may ñaax journaliste yi moy ñu dem xol ñoñ ñoy ñan. parce que ci biir profil yoy diñ ci gis ay technocrate yo xamné ne am jaar-jaar bu dëgër. am na lu ñu mën a indil Sénégal donc bu ñu disqualifier kenn nañu gëstu xam kan mooy kan xam kan moo mën a indil Sénégal dara xam nga dañu am élection yoo xam ne pour la première fois président sortant du bokk comme président sortant du bokk nag ñu bëri dañuy jàpp ni que am nañu lu ñu mën a indil seen réew mais xam nañ du ñëppay jàll parrainage xam nañ du ñëpp ñëpp jàlloon tam du ñëppay gagné benn poste moo am donc je pense que dina am fuñ ñu fo xamné ñoo ne ñëpp dinañu bolo sen doole ngir intérêt Sénégal waye bu ñu leen disqualifié yéen journalistes yi dañ leen di ñaax ngeen dem profil yep ngeen exploiter. ko xol ñi ñi bokk ñëpp ñoy ñan 200 wul avec tous les organes de presse qu'on a au Sénégal defena bo boo leen ben benn liggéey mën ngeen def ben travail d'analyse bu gaaw xam qui est qui qui est disqualifiable qui est présidentiable qui est euh, qui est éligible à la candidature. donc man man loolu invitation la bu leen di def. waaw ndaw yi ndaw yi moom ñu ngi gis ñun ñëpp ndaw yaa ngi dem ndaw yi euh, am nañu compétence parce que am nañu métier am nañu xam-xam ñun ñëpp am nañu ay xarit yoo xam ne ñii ay menuisier lañ ñii ay mécanicien lañ ñii ay tailleur lañ ñi ay électricien lañ ñii ay plombier lañ ñu am xam-xam ñu tàngat tàggat leen ci xam-xam waaye ndaw yooyu tey jii ñoo doyal Sénégal ba ja mu jaral leen ñuy dem jël. bateau yeeg yenen di dem Nicaragua di dem Espagne di dem fenen ak fenen donc ñoñu tay dañ leen wara geustu parce que yenen réew yi ñu ngi def yépp pour suñu ndaw yi ñuy dem parce que sen population mu ngi mu ngi mu ngi màgget mënatuñu liggéey donc suñu ndaw yi nga xam ñun dañ leen soxla war leen bëgg pour tabax réew mi ñom lañuy bayyi ñuy dem donc dafa jot defe naa ñun ñun ñi nga xam ñun ñëpp euh ñu ngi sét lolu diko gis amal euh, am yéene ci Sénégal ñu fexe xool nan ñu fexe ndaw yooyu toog ci sama discours joxe naa ci yenn piste am na suñu programme boo xam ne leer na ay ay solution yu concrete la yoo xam ne day régler problème bi maaye régler problème bi du xool li fi am waaye waajal lii di ñëwul parce que am nañu jeunesse boo xam ne bu ñu leen jëlul en charge léegi ñooy doonu chômeur u ëllëg donc aujourd'hui nàcc nàcc bi lañ ko war a arrêté d'abord buñ ko arrêté tabax lii nar a ñëw aja yow ah. la ñu doon xaar yow la ñu doon xaar yow la ñu doon séentu